wa jàngat li ma seetaan mooy match bi amna niveau tellement ça veut dire que championnat Sénégal évoluer na bu baax a baax xeyna tamit période biñ fi nek metti wonna mais actuellement bo gissé joueur mën football ngay giss ñuy jouer joueur mën football ci côté Casa ak ci côté Lusitana donc championnat bi mën évoluer ne na bu baax a baax baax et ñun dañuy fier tout le temps euh, di sétane championnat local bi muy évoluer vraiment. waaw comme li may wax tout le temps bo nekkee attaquant tout le temps da ngay rêver tout le temps terminer meilleur buteur ren yàlla def na ma jël meilleur buteur bi dougal 30 buts ak meilleur joueur bi donc damay damay content ci lolu et gën yok yokk bi aussi. wa amna proposition yu bari ak euh, yenen club mais dama nan euh, dem rek pour dem baxul da ngay dem ci bimu joté en fait meun nga dem ci yenen club yenen deuk parce que ñëpp dañ may ñaanal pour ma dem ci yenen deuk mais des fois nga nek fo xamni ni t'as pas besoin ngay forcer. Euh, lu jot yomb en fait comme les may wax lu jot yomb nañ ci nek ci liggéey bi tout le temps di continuer après lu ñew rek ñu jël ko quoi. Wa comme joueur yëpp ah hein. joueur yëpp dañuy rêvé ñëw seen équipe nationale dëkk actuellement sélection bi ñi ngi am joueur yu bax comprendre nga am nañ joueur yoo xamni ne ak ñom comme ay Saliou Ciss ñoom jouer jeune ak ñom en sélection ku nek da ngay rêvé ñew sa équipe euh, équipe nationale dëkk du moins mais actuellement. comme li ma wax rek lu jot yomb nañu def ndànk ñu ngi ci liggéey bi te am nañ sélectionneur boo xam ni baax na mi ngi mi ngi xool joueur yëpp comprendre nga des fois man doon nañ déggante ma moom donc euh, dañuy am espoir rek et nekk ci liggéey bi daal moo am solo après lu ñëw ñu sante ko suñu borom.